Euh, maa leen di fay. Euh, waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla junni ci yonent bi euh, comme ni ko gaa yi waxee sant suñuy waajur tey nag yàlla dafa dogal ñu am bis bu mag bis bu buñ koy wax mooy bis bu ñu mës am rek bis bi bokk la ci bis yi ñu ko gënal muy suñu sœur muy Amina Poté yàlla dogal muy am tey borom kër. li ñu mën mooy ñu ñaanal ko euh, suñ borom boole ko ci sëy yi gën a barkeel ci aras euh, parce que moom dañoo weesu man ak moom euh, ñawkat li ma booleek moom du télé du rajo li ma booleeg moom dafa yegg ci koo xam ne dafa mel ne ko bokkal ndey ak baay kon bu amee bis bii liñ mën mooy teew ci Euh, fekk si ko ci lépp loo xamante nii rek yàlla suñu borom dogal na mu bëgg ko ñu bëggale ko ko ci kon loolu lañ koy ñaanal di ñaan yàlla sëy bi barkeel euh, yàlla jubale ko ak borom këram euh, lépp loo xamante nii bëgg na ko ci am ci njaboot bu barkeel lépp lu mu séntu ci sëy bi rek yàlla na ko suñ borom def na suñu nag dara tëwu ko moom xam naa ko yàlla dogal na ci soxna su baax la ku am yar ku am ngor ku bëgg famille kon ku mel noonu liñ mën mooy ñaanal ko rek ndax mënuñu leneen. ñu gis ne complicité bi ngeen am yéen ñaar wax nga ko ci seen i biir wax romb na sax complicité wu ak ah, gis nañu ne da ngeen dem ba complicité bi ñu bëri daf leen jaaxal ko xam moo duggee héritage xam ne célébrité bu nekk lay liggéey mais lan moo tax particulièrement moom ak Amina Poté ñu jege yantoo lool. waaw xam nga ñaar ñoo xam ne suñu borom dafa dogal lu dagg moroom ma lay fekki mooy moom. tey bu soxla woon bëccëg balaa guddi ñu xam ne bu ñu xëyee tey kii lii la soxla loolu dañ cee war a dem taxawul ko ko parce que moom moo toll noonu ci ñun euh, du problème mu célébrité parce que ñun ñëpp suñuy xarit lañ mais àdduna dafa am ñoo xam ne loo xam ne féete la ndax man àdduna bi moom ma féetaleeg moom moom nag mu nangu ko lool kon tey jii dafa nekk nit koo xam ne ci man maanaam li ñuy wax rek. maanaam sama sœur de sang la comme ni koy waxee nit ku baax la nit ku am ngor nit ku am diine doo gis fenn nag waaw yow yàgg nga ci yàgg ngaa yor sa kii mais li ngay gis Amina bariwul li dégg ko micro yombul ci réew mi kon nag euh, comme li ma la wax rek ñun ñaar daal yàlla moo ñu boole mu ngi bëgg a yàgg te xam naa ne li may def rek mooy di ñaan yàlla yàlla lafal ñu cat sama diggante ak moom ndax moom sama jigéen la sama xarit la ay ci biir loolu nag ko xam moo digee héritage xam ne jege na kookee di moo geet ndax tout rek bi muy fësal li nga xam ne moo di mode euh, sénégalais yow bokk nga ci ñi mu jëlee Sénégal daal di leen yóbbu foofee ca Las Vegas tout récemment nag def na vidéo boo xam ne ñu bëri koy ŋàññ jëmale ko nag ci ki nga xam ne moom moo di Wally Ballago Seck ñi naan moom lay waxal ñi naan wax ñoo moom yow mi nga xam ne jege nga ñooñu ñu ban avis nga am ci loolu non euh, wax dëgg yàlla euh, samay problème mu bopp rek mënu ma koo lijjanti bay lijjanti ay problème yoo xam ne wax dëgg yàlla xaw ma fu mu dooree ak fu mu tàmbalee li ngay wax ni yow yaa ma ko wax mais gisuma ko sax yëguma ko gisuma ko parce que man nekk ma ci loolu man li ma nekk mooy sama liggéey euh, respecté ko fonk ñi ma yàlla booleel ak ñi nga xam ne dañu war a ñëw mais quant ay waaleeg moo géet wax dëgg yàlla euh, ci business boobu nekkuma ci lii boo ma ko waxul woon sax du ma ko xam parce que ma ci xel dëgg yàlla. non non bi showbiz bi nekkee ban avis nga leen jox boo leen doon jox tey benn message loo leen def. Euh, soxna si nag man xam nga luy tasawu fee maanaam man dama nekkul ci loolu ma nekk ma ci noonu showbiz ak kii parce que man euh, ñii liggéey daal yàlla dogal na maa ngi ànd ak ñoom di liggéey mais ay noonu showbiz wax dëgg yàlla man daal tey su ma sañoon. ñu waxtaan ci Amina mi nga xam ne bésam bi amuñu lu ko lu ko gën a rëy. waaw uh-huh. Amina man lool lool daal. ndax moom moom sama jigéen la uh-huh. Amina du noonu.